ba nu ko gërëmee moom itamit daf noo gërëm ñun li nu ko amee ca lan ko gërëmee Mbàkke borom daaru ba nu ko gërëmee moom itamit daf noo gërëm Mbàkke ñun li nu doon ut ñi ko amee ca lan ko gërëmee borom daru borom yermande borom daru borom jamano Mbake lu nu bëgg nga di mu ñew lu nu ragal nga dak mu dem kenn du baabu laa ngi wax jefe Serigne Touba jefe borom Touba jefe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul diam mbekté nak ñew fi ci Def Def TV ak ndoguli and ko gaay Ah di si tàmbalee suñu jëwriñ leeto man Paa Gueye Zikru laa ma teew fi ah suñu jëwriñ mii moo ko jiite di di du l'international ah kon Siweul ma TV u ñëwee seet suñu dinañ am mbégte ndax gars yi lii lu ko sabab mooy maanaam waxtu ndogu ku ne du la fekk sa kër am na ñoo xam si mbedd bi leen di fekk ñu ko ngir dara dañ koy def ngir te yàlla rek tax ku ci ne boo demoon sa kër li la neex ngay commandé. ah ndax kilifa nga fa waye buñu baye seen yitte yépp tok di joxe ndogu dañ ci jaamu yalla ma nga noonu lolo ko sabab man nak damay lott ci di wax dañ ma wax lo rek waye sama jëwriñ bi la jox mu barkeelu momit it ah. bismillah bismillah inna wali allah jërëjëfe borom Touba jerejefe borom Touba jërëjëfe borom Touba waaw gaay li mom yombul. Mhm. waaw ndaa joxe ku toogoon rukk mun na jëndal boppam ndogu ndogu mais sooy sa ñëpp ñëw booloo seen doole ñëw fii nii nga xam ne ne kon lii rek mooy dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul waaw ñu nañu santaat yàlla rek di julli si yeneen bi lii moom mooy def def famille bi jëf te yàlla tax la ñun fii amul xale amul mag amul ndaw ñoo bokk ndaw ñoo bokk bàyyi lu ñuy liggéey xaaruñu yor suñu ñàkku bopp booy bàyyi seen yitte yëpp. ñëw ji teewee ngir jëf rek te yàlla tax. di joxe ndogu liggéey jaamu yàlla kon ni ko borom si kóor yi bëggee rek. si liggéey bi jaamu yàlla koo ji jox wàccu waayam. xale jox mag cër. mag jox xale cër ñu doxal. di ñaanal ñëpp jàmm koor ga ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim. génn seen nan la mën a def tamit. waaw ku ci bëgg a jàpp moom da ngay woote si da kii numéro Saliou mu ngi nii rek Baye Sall mooy jëwriñ bi mu ngi ne toog. Mm-hmm. mooy 77.

yaay sunu baabu laay baabul jannate. yaay sunu baabu laay yaay sunu baabu laay. xanaa da ngeen woor. yaay sunu baabu laay yaay sunu baabu laay baabul jannate. yaay sunu baabu laay. ndeysaan. yaay sunu baabu laay baabul jannate. ku sopp borom daaru loxo ku sopp borom daaru loxo ku sopp borom daaru baabul laaya baabul jannate yaay sunu baabul laaya yee yaay sunu baabul jannate kon mi ngi noonu jaajëfe borom Tuubaa ah ma seetaan nag ma ñeetaan fii lu fi waaye def sëriñ mi nga ko defal ah te ki nga koy lebal am na fay kon mi ngi noonu waaw wu xeebuñu dërëmu kenn waaye tam ñu million wu kenn ndax jëf te yàlla tax la ma nga noonu waaw